bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli di noo ngi leen di nuyu te di leen jaar ci bis bu tedd bii di yëkkati sunu kàddu jëmale ko ci xeexu jamono am na ay audio yu tasaaroo yoo xam ne mat mën naa jur fitna ëllëg wala ñëw si bi mooy tariixa bii la diw nekkoon jóge na ci ñëw ci bii waaye tariixa bii mu ñëw tamit ñun ñoo ko war a defal lii am na ñuy tasaare ay audio nan tarixa bi di ba diw nekkoon te jóge ci dem ci beneen tarixa du am ndam am na ñu nekkat tarixa bee mu jóge ñëw ci bii ci ñun dana am ndam te ñaar ña koy wax ñëpp duñ ca dara ca tarixa yooyu ñuy wax lu dul doon ci ab taalibe ni man don kon nag nanu xam fi ñu war a yem ab taalibe day xam fi mu war a yem nun ay taalibe lañ dañ ñuy jiite rek na fal lu waxoon rek diw may jiite ak diw di ma jiite jurul xuloo jurul xeex gannaaw yow dañ lay jiite ji rek doo jiite kenn kon nag war na ñoo xoolaat suñu bopp tari borom tarixa yi moo xam ñi ko sos la wala ñi leen fi nekkal réeróo wuñ ci genn wet nun ni nga xam ne ay taalibe rek lan nag di ay citoyen yi rek yoo xam ne nii nekk ci réew mi la ñu dëkk war na noo xam fi ñu yem am na loo xam ne du wàllu taalibe am na loo xam ne doolu nit ku baax may ñaan nag képp koo xamante ni yónnee nañ la audio bi ginnaaw mënoo ko bañ a jot ndax buñ la ko yónnee duñ la ko tàgg duñ la ko yëgal nga fexe bi ba jotee bu ko tasaare kenn mbaa nga di ko nettali kenn supprimer ko fa saasa mu yem ci yow su dee am nga ci aw naqar nag day yem ci yow waaye boo ko ci amee ba noppi nag yónnee ko keneen ngeen yem pas-pas waaye ngeen yem tolluwaay mu am ci aw naqar naqar yooyu gën a yaatu kon du ko jar ñu ngi koy yónnee nañu ko dakkal te kilifa yi nga xam ne ñun ñooñu yilif nanu wax ci lii ndax ñun ñëpp seen ay njaboot lañ innamal mu'minina ixwa la quran wax tariixa baa wala tariixa bii yëpp benn lañ yéen ñi nga xam ne nag da ngeen a bëgg a jiite réew mi nga la waaye nun ñi ngeen bëgg a jiite ku nu xool ba ne moo nu doy yow mi nga xam doon nga bëgg nga nga doon doyagóonu wala doyooñu loolu jëru xuloo jërul xeex xanaa bu dee dag ñoo bëgg liggéeyal kese te ñun ñoo ñoo ñoo ñooy tànn ki ñu tànn dañu ànd ak moom ki ñu tànnut ñu xam ne tànnuñ ko wala tànnaguñ ko waaye bëgguñu liggéeyal rek nga ne ñun nga bëgg liggéeyal te ñun neexoonu wala neexagoonu kon loolu jërut xuloo jërul xeex ku yàlla ne moom la nañ ne moom la li gën a ëpp coono ci àdduna nag mooy yàlla ne waaw nga bëgg na déet te du mës a doon déet ba àddina tukki nanu xoolal suñu bopp yem fi ñu war a yem ànd ak ki ñu war a àndal ci nañu war a àndeek moom woteel ki ñu war a woteel ci nañ ko war a woteele suñu yàlla yóbboo ca bis ba maa ngi ñaan képp koo xam te ni nit ku baax nga bëgg lu baax bëgg jàmm soo wotee ba nopp demal fa sa kër yor sab rajo mbaa sab télé di déglu lay xew waaye garam place yi ñu fay def muy indi coow li muy indi tamit erreur yi ñi nga xam te ni ñoo yoragun nguur gi wala ñoo ko yorandeegun nanu jël ay matuwaay ba képp koo xamante ni liggéeye fa wate nga ba napp nu ban faa nekk di taxawaalu ndax loolu mooy indi fitna yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla dolli teraanga li nga xam ñi ngi koy wax ci diggante ay tarixa yi dañ ciy ñaaw rek waaye du ñoom duñu mas a ñaawoo loolu lu wér la yal na yàlla def jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu